Abdou Maliki Bousso maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdoul Malick Bousso nga nekk membre du bureau exécutif du forum civil euh, déjà ma lay laaj sa appréciation ci plan euh, référentiel Sénégal 2050 bi nga xam ne lancé nañ ko président Bassirou Diomaye Faye daal di koy euh, lancé bu ñu dégloo le premier ministre Ousmane Sonko mu ngi ñuy wax ñeent axe stratégique yoo xamante ne si lañu si lañ ko fas yéene dëxëñ jëm ci politique nationale de développement wax na wàllum gouvernance ak engagement panafricain wax na wàllum aménagement et développement durable du territoire wax na ci wàllum capital humain et justice sociale euh, axe bu mujj bi di économie compétitive et création d'emploi naka nga jàngatee euh, projet bi la xam ni moom la président Diomaye jébbal sénégalais yi euh, que ñoom bu ñu ñëwee am na gis-gis bu bees boo xamante ne moom la ñu lal euh, pour mun a exécuter politique publique yi ñu yaakaar ne war na mun a euh, jëmal réew mi ci kanam euh, réew nag mun fonctionner fekk amul stratégie de développement surtout réew yi mel na suñu réew yi mooy xool naka lañuy ñuy ba la ñu am ca moomeel ak ca alal ak ca koom war a mun a suqali réew mi naka lañ koy yaxanale naka la ñuy tabaxee réew mi ak citoyen yi ba ñu mun a profitoo te opportunité yi yeleen yàlla baaxee mun a tabaxu tabax seen réew loolu nag dafa laaj ñeenti axe yoo xamante ay axe yoo xamante ne axe yooyu mooy ay ponk ponk yooyu ñoom ñooy structuré politique publique ñoom nag def nañ ñeenti axe yoo xamante ne dëgg-dëgg euh, euh, nay ñuy tabaxee stratégie de développement euh, ak si yooyu buñ koy reflété PSE nekkoon na benn euh, matrice de politique publique euh, avant loolu yeneen stratégie de développement amoon na stratégie bu ci nekk luñ ko sabat mooy wut pexe yoo xamante ne buñ ci jaaree war nañu mun indi indil yegg fa ñu bëgg a yegg ñoom nag ñële ñu ngi yemoon deux mille trente cinq ñoom ñu ngi projeté wu deux mille cinquante euh, euh, am ñeenti axes yoo xamante ne moom lañ décliné mais ci ñeenti axes yooyu ban benn rek laay mën a jukki mooy axe boo xamante ne moom moo concerne gouvernance ak état de droit forum civil def ci yàgg liggéey euh, ak état bi di liggéey pour ñoŋal gouvernance bu baax parce que gouvernance moom mooy yaxu ndikk lépp gouvernance bi bu baaxul yeneen actes yëpp mënuñu mënuñu dox Euh, la ñuy def ci stratégie mhm. fa ñu bëgg egg pour ñu egg fa àla kulli al état de droit taxaw gouvernance bonne gouvernance taxaw pour ñu mun a réussir yeneen ñetti axe loolu moo tax euh, man fa laay taxaw forum civil ca loolu lay liggéey ci loolu laa mun a apprécier peut-être stratégie bi nga xamante ne moom la ñu présenté tey. Hmm. est-ce que mën nañu jàppee plan Sénégal deux mille cinquante bi comme déclaration de politique général bi nga xam ni ñu ngi si doon xaar Ousmane Sonko. jege nañu mais duñu benn. Euh, politique bi. Euh, nga xamante mooy plan euh, stratégie nationale de développement à l'horizon deux mille cinquante moom dafa dafa jéggi mandature dafa jéggi mandat. day dem ba deux mille cinquante alors que déclaration politique générale dafa am benn durée boo xamante ne soit c'est la durée de vie du gouvernement soit soit soit c'est la durée de vie du mandat du président la République cinq ans te encore ah, lañ koy jébbal euh, euh, déclaration de politique générale naam réew mi la concerné mais assemblée nationale moo ko yelloo moom la député yi lay gouvernement bi euh, premier ministre présenté Euh, lan mooy cadre d'action moom naka lay fas yéene liggéey li ko président de la république dénk alors que lii pri assa euh, réew mi lañ ko jagleel naan ah ñun de fii la ñu fekk réew mi lii fii la bëgg a jëmeeg réew mi yeeg deux cinquante pexe yi la ñu lal pexe yi nag ponk yi ponk yi ponk yi ñoo koy ñoo koy mooñ loolu dafa dafa différent euh, premier ministre bi wala premier ministre yi di ñëw assemblée nationale bay taxaw war na fa teem ne leen man de ci anam yi nga xamante laa am seen confiance ak confiance président de la République. wax si beneen ponk bu am solo Abdoul Malick Bousso di tabb gi ñu tabb ay chargé de mission lopp 40 ci euh, benn euh, ngoon naka nga gisee mbir mi li nga xam ni euh, régime bi def na ko mu jur coow ci chargé de mission yi. xam nga mbir mi mën nañ ko saytu ci ñaari anam. anam bu njëkk bi mooy niveau légal président la république am na sañ-sañ nommé aux emplois civils loolu sañ-sañu président de la république léegi te sañ-sañ boobu am na nañ doon jëfee parce que la laaj euh, li chargé de mission muy rôle am ci administration mooy ñu fexe ci administration ñu xool xam ne kii de ñaata liggéey di ci yëngatu pour seen liggéey ak li ñuy ñoo am mot il faut am ku leen dolli ci xel ak xalaat wala wala ci ci liggéey bi kooku nag bokkul ci administration bi da mais dañ koy dañuy jéggaani xam-xamam wala doole mu ñëw ci diiru gu gàtt mu ñëw indi lampa manqué pour mu mottali ko bu loolu motee mu dem yoonam loolu mooy ordre mooy chargé de mission mais dañuy gis ne chargé de mission dañ koy tabbee ci yeneen rôle ak yeneen anam la ci politique boo ci lalu ñooñu politique yi jege eh, ñay tàbb ñoom lañuy jël di leen chargé ay mission yoo xamante ne du loolu moo ko taxoon a jóg loolu nag amoon na fi ñoom it dañoo mel na dañuy continuer ci loolu te amul rupture sur le plan moral et éthique loolu euh, jëmul fa fañ leen doon xaare parce que loolu moo ñu naan euh, euh, nañuy defee nii trajectoire bi ñu jël nii ci yenn anam yi du trajectoire bu baax borom ci biir génn na ci ay ay euh, ay déclaration ak ay crise de parole pour wane ne am na loo xamante ne la fa newoon buñ ko bëggee reconduire day mel na rupture bi ñu doon nas des na nañu dellu waat ci fondamentaux yi ak ñoom li ñu digaale woon ak réew mi ñu doxal ko parce ci loolu lañ leen di xaar. Euh, ñu laaj la beneen ponk bu am solo nekk au cœur de l' actualité fi ñu toll nii euh, crue bi nga xam ni fleuve Sénégal bi def na ko tax euh, askan wi dëkkee foofu lay nekk ci ay jafe-jafe comme ca Bakel onze villages fi ñu toll nii ñoom ña nga ca biir ndox ma mu nekk situation bu métti naka nga ko gisee Abdoul Malick Bousso. waaw xam nga euh, mbiru mbiru mbiru yàlla moom dafa dafa dafa yéeme la xew ni euh, mooy que am nañu xeetu taw ci Guinée yu am doole doole goo xamante ne barrage bi defoon pour réguler fleuve Sénégal ah ci Thiabaffine barrage boobu yegg si na foo xamante ne mënatul téye ndox ma ak bariwaayam fekkee nag barrage cedde na toj na dox bi dina ñëw doole goo xamante ne musiba bi ñu gis dinañ gis bu ko raw doo moo tax autorité barrage bi ne xaaral lay ëpp fokk ñu ubbi ay vannes ñu ko bàyyi ko muy jàll balaa muy daj parce que ndox bu ñëwee il faut mu am yoon balaa muy dajji barrage yi gën a yàq loolu nag dafa fekk ne euh, Sénégal di continuer taw dex yu bari yi nga xamante ne ñoom ñooy alimenté fleuve Sénégal euh, dex yooyu yëpp mu pàcc te loolu day yéeg rek di yéeg di yéeg ci Valérie mun na am sax yéeg ci ba Saint-Louis la ca des mooy ñi ci loru dañu laaj ay mesures d'urgence yoo xamante ni allah kulli aal nguur gi jiitu ci mais réew mi fekk ko ci parce que du mbiru nguur rek mais nguur na moo ci war a jiitu génne ñi loru ñi ci ndox ma wutal leen dëkkuwaay fu ñu ne xale yi ay école bu ñu war a jàngee ñu santé boo xamante ne ak indi leen ni ñuy dundee pour yombalal leen Euh, seen métier actuellement la ca des mooy que Sénégal dafa war a liggéey ak yeneen pays yi mu bokkal bassin bi pour ñu continuer régulation fleuve bi parce que fleuve il faut nga réguler ko benn barrage yooyu foog yeneen barrage de telle sorte bi di nga am ay lakk di am ay lakk ndox mi bu bëree da am boo ko dencee ndox mi bu manqué di nga génne ndox mi nga dencoon utiliser ko bu ndox mi bëree ñëwee ñëwee nga mun ko stocké mu bañ a dem di yàq loolu nag régulation fleuve boobu ay la laaj xaalis la laaj ay investissements dépassé na Sénégal mhm. donc c'est à l'étape a au niveau du bassin donc c'est tous les pays concernés par le bassin ñoom ñoo war a jóg ci loolu nañu bu ñu présenter de manière simpliste maa ngi déglu ci rajo mu mel na barrage bi mooy problème bi déedéet barrage bi du problème bi ba problème bi mooy débit yi barrage bi attanutu ko il faut que yeneen barrage ñëw en am point parce que lii cycle la bi bu commencé kenn xamul fañ fan la yemi cycle sécheresse amoon na bii cycle pluvieux la te euh, xëy na euh, déwén ak ak at yi di ñu mun a ñu am niveau de pluie yu yu yu méngoo nag fagaru moo gën. merci beaucoup Abdoul euh, Malick Bousso ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci tont bi nga tontu suñuy laaj. maa Maliki Bousso maa ngi fàttali ni membre nga euh, ci bureau exécutif du forum civil jërëjëf Abdou Maliki Bousso